boo ko xamee li mu waroon a doon mooy sant ko moom mënatuta mooy di ko sant ndax li muy def lépp ak cant la yàlla lañ koy joyal waaye yàlla nag daa doon lu nëbb doon lu feeñ nanguwul ko ko sant lu dul da koo sant ca fam feeña la yëf ya te Sëriñ Tuubaa nee na cant gi fi ko yàlla bëggee mooy fi moom ndax man mii la yàlla mayam cant gi malaka nii sukkurallahi fii turaab yi waxat maha asa an ixtiraab yi cant yàlla ci kow suuf sunu borom man mii la ko jox kuy sant teggi ma dudu ko nangu moo tax kii julli day sant déggoon ngeen ni ma ko waxee woon kii war di sant kii def asaka di sant kiy def nangam di sant di jéem a sant yàlla waaye fan war a jaarale sant gi mooy fa naqaree xam naka cant gi dëgg dëgg dëgg Serigne Saliou sëriñ Saliou la ñu war di sant. loolu yi nag mooy ndimbal li nga xam ne moom la ñu dimbalee ba muy wax ni ci kàddoom googu yi ne ku am leneen def ko waaye noonu day sant Serigne Saliou mooy sunu diine yéen a ngi fàttaliku ci rajo bi. Serigne Saliou daa génn daane lu dul lislaam awma cig defar awma cig yàq daane doonuma ca dara sëñ bee ko siyaare ji ko ca dimanche ja daan ko mbàkke day dégg nañ sa wax ja loolu yi day ñu bég ca lool di la ci sant ndax ñun day lislaam ji màkkee dañ cee xam lu dul di la sant te dimbali nga nu ba nu xam ne mooy dëgg-dëgg diina ji sëriñ Saliou ne uhu daal di dëggal jooju wax nga xam ne ko nekkee ku xam ku ne danga xam ne dëgg dëgg diina ja mooy sant ko moom sëriñ bi tawféex googu yi la ñu defal moo tax nun nun nun cantaakoon yi amul laneen lu nuy def lu dul di sant sëriñ bi ndaka keneen ku ne sax ca nga nekk boo ko xamee ak boo ko xamut waaye nag di ko def xam ko daa bukk tak di ko def te xamoo ko sant sëriñ bi rek am moo tax sëriñ tubaa li mu doon ci nun bu ko ñëpp maasee xam kenn dootu def lu du ko sant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 mu seere ne ma maa ngi diine lislaam yi ci laa ne. ma seere ne diine lislaam yi ci laa ne. te du ma ko booleeg dara. te du ma ko booleeg dara. lu dul moom nag. lu dul moom nag. aw ma ca defar aw ma ca yàq. aw ma ca defar aw ma ca yàq. doonu ma ca dara. doonu ma ca dara. asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. yàlla. wax ji bi nga waxee ci rajo bi danoo daal di. jooje da nga koo wax rek waaye yàq yàq mel noonu nii